ñu daal di ñëw rek wax lu soxal liste yi gouvernement bees bi gouvernement bi nag dafa jógee ci fanweer ak ñetti ministre yokk ba fanweer ak juróom-ñetti ministre juróom-ñetti soxna ñoo ne ci biir gouvernement bu bees boobee ku nekk ci bopp ba Amadou Ba moom mooy premier ministre. mu ngi noonu Moustapha Niass moom it am na nomination moom nag Macky Sall da koy jiite haute da ko nominé haute représentant di président de la république maanaam mooy koo xam ne da koy xelal ci. lu jëm ci réew mi ak nañuy doxalee doon jege ñaalem léegi kon day dem ca pale wala mu toog këram di xelal Macky la waaye nag luñ ko a gisee ndax bu doonee kuy xelal njiit réew mi doot koo xam ne da koy représenté it dana dem toog foofu ca pale gannaaw ba ñu ko jëlee ci assemblée nationale moom secrétaire général partie AFP Moustapha Niass Sakar Tafa wala Sakar ma jëwee. aja kon ngeen xàmmee gars yi Aly Ngouille Ndiaye mu ngi nii moom mooy ministère de agriculture. ak lu jëm si wàllum équipement rural moom Aly Ngouille Ndiaye moom lañ ko daal di na jox ko ko kii mooy Cheikh Omar Anne moom nag l'enseignement supérieur la jógee ñëw ci éducation nationale njàng mu kaw mi lañ ko joxoon léegi nag moom lañ dénk njàng mu suufe mi muy éducation nationale moom Cheikh Omar Anne Maître Sidiki Kaba mooy ministère bu ñu dénk force armée moom lañ dénk arme bi Euh, bokk na ci armée boobu nag muy waa gendarmerie ak ñoom militaires yi moom mooy seen ministère kon moom Sidiki Kaba fi mu nekkoon tuxu puusut paasu dafa reste waaw moom ministère bu bees la moom Oulimata Sarr xale la jigéen la moom lañ dénk ministère de l' économie du plan de la coopération maanaam euh, koom gi ak euh, plan maanaam mooy yooyu noonu ak coopération jokkalante gi ak yeneen réew réewaan mu ngi noonu Moussa Balde moom mooy ministère bi ñu dénkoon wàllu mbay mi ba temps si gannaaw sax génnoon na ren di lu mu néew néew diggante mboq ak dugub danañ ci ay millions lu néew néew moom nag jëlee nañ ko ci mbay ma te mbay ma jeexagul yóbbu nañ ko ca ministère de l'enseignement supérieur moom moo yor njàng mu kawe mi ak wàllum gëstu ci wàllum xam-xam muy recherche ak innovation acca kon PS dañoo desal kii di Serigne Mbaye Thiam moom ministère la waaye mu ngi bokk ci parti bii nga xam ne Aminata Mbengue Ndiaye moo nekk secrétaire général gi di PS euh, moom Serigne Mbaye Thiam nag ba tey dafa des fi nga xam ne la ne woon mooy ministère de l'eau et de l'assainissement mooy ki ñu dénk ndox mi ak wàllum defar assainissement bi mooy yi ndox yi war a jaar acca Mariama Sarr maire bu Kaolack woon léegi nag doonatul maire ndax Serigne bu ko fa jëlee moom lañ dénk wàllum formation professionnelle kon moom mooy ministère bi ñu dénk wàllum formation professionnelle ci nguurug Macky Sall gi nga xam ne amadu Ba moo ko jiit Doudou Ka ci Ziguinchor la dëkk mooy ki nga xam ne moom lañ defoon directeur ay AIBD moom moo jiite woon aéroport yi euh, doon jekk-jekkal moom nag far nañ ko jox avion yi kon avion yi naaw di dem ak dikk moom moo leen jiite léegi mooy seen ministère ko am looy laaj wala looy yónnee walla looy ñaxtu ca Doudou mi ngay dem mooy ministère de transports aériens ak euh, développement des infrastructures aéroport treize kon Doudou Ka moom mooy am léegi moo yor wàllum fafal naaw yi naaw di dem ko dikk Pape Sagna mbay moom moo wutu Alioune Ndoye ca poste ba mu yoroon muy ministère de la ministère des pêches wàllum napp gi kon nappkat yi bu ñu amee li ñuy te li ñuy jooy ci kii lañ koy jooytoo mooy Pape Sagna mbay ministère de Euh, pes ak économie maritime maanaam moom mu leen dénk wàllum napp ak sàmm koom-koom gi ci géej gi Abdou Karim Fofana mooy ministère bi ñu dénk wàllum njënd ak njaay mi kon yéen commerçant yi bu ngeen amee lu ngeen di ñaxtoog lu ngeen di laaj kii mooy seen ministère bi ngeen ko war a laaj ci gouvernement bu bees bi moom Abdou Karim Fofana mooy ministère des ministère du commerce euh, ak lu jëm ci wàllum consommation ak wàllum petite moyenne entreprise waaw kon kii nga xam ne nag mooy Abdou Karim Fofana moom lañ dénk wàllum njënd mi ak njaay mi fii ci réewum Sénégal. Samba Ndiobène Ka moom mooy ministère bi ñu dénk wàllum développement communautaire développement communautaire nag mooy gox-goxaan yi euh, ak lu jëm ci wàllum solidarité nationale ak l'équipement socio et territorial kon moom lañ dénk ministère bi nga xam ne mooy saytu. Euh, développement communautaire mooy jekk-jekkalaat yenn gox goxaani kon kii di sàmm Ndiobène Ka mooy ministère bi ñu ko dénk ci gouvernement bi. Saa Njàmbur Moustapha Diop mooy ministère bi ñu dénk wàllum développement industriel ak petite moyenne industrie kon moom ba tey mu ngi ci industrie ba fa la des moom monsieur Moustapha Diop Saa Njàmbur doon maire bu Louga. ba jatara bokk ci parti réew mi ci bokk ci mit ci benn bokk yaakaar doon booyu Idrissa Seck moom moo wutu Makhtar Ba ci wàllum tàggat yaram mooy ministre bi ñu dénk wàllum sport kon yenn xale yi football nawetaan su ngeen amee li ngeen di ñaxtu ak yéen suyéer yi laaj leen ko kii di Yankhoba Diattara jamono ji mooy ministère portefeuille bu yor seeni mbir Aline Sow mu ngi noonu moom nag jege ñaale Macky Sall la woon mu demoon ba ci biir mu génn àndoon ak Pape Diop sax ci élection yi ñu weesu euh, falum député yi nga xam ne ci weerum sulee ba ñu génn la moom Alioune Sow nag moom lañ dénk ministère de culture ak lu jëm ci wàllum historique ak patrimoine waa wàllum histoire réew mi ak patrimoine maanaam li nga xam ne mooy sunu moomeel kon yéen bindkat yi ak yéen woykat yi ko am looy ñaxtu demal ci àllin Sow mii nga xam ne jege ñaale Pape Diop la ci élection yi ñe weesu ñoo àndoon moom lañ dénk wàllum culture ak musique ko ñoom Youssou su ngeen amee lu ngeen di laaj laaj leen ko Alioune Sow moom lañ dénk wàllum mbalax mi kon kii mooy doomu gin gi gi di Pape Malick Ndour Pape Malick Ndour nag mooy ministre bi ñu dénk xale yi ak lu jëm ci wàllum entrepreneuriat ak lu jëm ci wàllum emploi mooy xëy gi kon Pape Malick Ndour gune gin gi neew gi moom lañ dénk yéen ndaw ñi bu ngeen amee lu di laaj ak lu ngeen di ñaxtu moom moo yor seenu Euh, bunt ca président Macky Sall ca gouvernement bi kii mooy Samba si ministère bi ñu dénk wàllum travail mooy liggéey ak lu jëm ci dialogue social maanaam waxtaan rawatina ñoom syndicaliste yeeg ñoom liggéeykat yeeg ñooñu bu ñu amee li ñuy ñaxtoog ak lu ñuy laaj moom kii di Samba si lañ war a dem si moom laaj ko ko ci gouvernement bees bi ndax moom lañ ko dénk ak yéen liggéeykat yi mooy seen ministère. acca moom xale la moo nekkoon tête de liste bu coalition benn Bokk Yaakaar Ziguinchor moom Victorine Dey moom lañ dénk lii di ministère de microfinance ak économie sociale et solidaire mu fuutu kile di jigéenam Sahra Iyane Thiam moom doomu Ziguinchor bi kon moom moo nekk léegi jamono ji ministère bi ñu dénk wàllu microfinance mooy séddale yenn xëy xëyaani ndaw yi nga xam ne ay financement la jëm ci askan wi ba ci jigéen ñi ñooñu kon léegi Victorine Dey ku am looy laaj ci wàllum financement yéen ndaw ñi jigéen ni dem nañ ci moom. kii mooy Mamadou Talla moom lañ dénkoon wàllum njàng mu suufe mi ministère de l' éducation nationale gouvernement bees bi nag dañ koo soppee jëlee ko ca éducation nationale yóbbu ko ca ministère des collectivités territoriales ak lu jëm ci aménagement di territorial moom nag lañ dénk collectivité locale yi moom mooy gox goxaani kon kii di du Talla. ginnaaw bi nga xam ne jàngalekat yi yàgg nañ koo mbomba ka xas ne mu yore njàng mu baaxut kon daal nañ koo toxal kon dana dolaat beneen feex jëm ci syndicaliste yi nga xam ne yàgg nañ koo ŋàññi ci njàng mu digg doomu mi mu yoroon moom Mamadou Talla kon yéen ñi nga xam ne yéen ay collectivité territoriale yi lépp lu ngeen soxla dem leen ci moom laaj ko ko. acca kii mooy Moussa Bokar Thiam moom moo nekkoon agent de l'État moom moo jamono ji mooy ministère de la communication des télé. communication de l'économie numérique ministère bii nag li joxoon ki nga xam ne mooy Yankhoba Diattara kon daal nañ ko faa jëlee jox ko kii di Moussa Bokar Thiam kii mooy Gallo Ba maire bu Mbàkke moom nag léegi ministre maire la waaw moom mooy ministère bu ñu dénk wàllum fonction publique ak lu jëm ci transformation di secteur public kon Gallo Ba moom ministre maire daal dinañ koo def moom moo jiitoon SOSIP SA ca Diamniadio liggéey ñu fi roon amal léegi nag doonatu directeur ministère la Galaba Doomu Mbàkke bi acca mu ngi noonu kii mooy Ali Sele Diop ministère de l'élevage des protection animale mooy ministère bi ñu dénk wàllum càmm gi ak euh, aar jur gi ak lekk jur gi moom mooy ki nga xam ne moo ko war a saytu kon yéen sàmmkat yeeg éleveurs yi bi nga xamante ne ni ñaxtu dem nañ si ministère bii di Aly Sele Diop wax ko seeni soxla acca ki mooy Pape Amadou Ndiaye moom mooy ministère de l' artisanat et de la transformation di secteur informel kon yéen artisanat bi ministère bii mooy seen ministère kon yéen ñi nga xam ne da nekkee secteur informel bi te ngeen doon ay artisan man ngeen a dem si ministère bi jooytu ko seeni jàmbat ak seen i bëgg-bëgg te gouvernement bees bu Macky Sall bi nga xam ne Amadou Ba moo ko jiite aca Aly Ndoye ngi noonu mooy ministre bi ko nappkat yi yàggee xaxar ak euh, mbamb ne moom daal dafa yàq napp mi jëlee nañ ko si ministère bu yar wàllum napp mi indi ko si environnement bi fi nga xam ne nag Abdou Karim Sall moo ko jiite woon moom mi dibi woon suñ kiweel ya kon Aly Ndoye yooyu itam suñ gasel bu fexe rek suñ gasel oryx yi mooy am kiweel yi boo ñëwee yéen nga moytu koo dibi waaw kon Aly mooy ministère bi ñu dénk wàllum environnement jamono ji waaw acca Omar Sarr a ngi noonu euh, moom ministère Omar Sarr nag moom lañ dénk li nga xam ne moom mooy wàllum euh, séologie kon Omar Sarr moom day resta fa mu nekkoon waaw mu ngi noonu ayca mu ngi noonu kon Abdoulaye Seydou Sow maire bu kafrine ñu ngi jégalu si message boobu mooy maire bu Kaffrine moom it moom lañ dénk wàllum urbanisme ndax moom fa mu nekkoon ba tey jii moom moo wéy di fa des si fàttali it moom mooy ki toftal ci mm, président bi jiite wàllum football bi di maître Augustin Senghor kon Abdoulaye Seydou Sow moom mooy ministère de l'urbanisme ak wàllum hygiène ak logement public. acca mu ngi noonu Antoine Félix Abdoulaye Diome mooy ministère bi ñu dénk kaaraange biir réew mi ndax moo ko yoroon moom doomu xombol boobe Abdoulaye Félix Diome wala Antoine Abdoulaye Félix jomm acca mu ngi noonu Marie Khemesse Ngom Ndiaye mooy ministère de la santé de l' action sociale mooy ministère bi ñu bu ñu dénk wàllum faj geeg fegu gi ak lu jëm ci dimbale ñenn ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw rawatina si bërëbu fajukaay moom mooy ministère Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñi nga xam ne du yàggu dara lañ ko nominé woon ginnaaw ba mu fa wutoo Abdoulaye Diouf Sarr si ministère ba kon moom daan nañu dëggal ab ab toogaayam foofu ca ministère bi ñu dénk wàllum wér yaram gi. aca kii mooy Sophie Gladima moom Sophie Gladima moom mooy ministère bi ñu dénk wàllum pétrole ak énergie moom Sophie Gladima si bi moom mooy ministère bi ñu dénk wàllum pétrole ak énergie kon moom day woy di rester fa mu nekkoon mu ngi noonu ngeen jàkkaar leen ayca kii mooy biram fay ministère auprès di ministre de l'intérieur chargé de la sécurité de proximité la protection civile Birame fay mii moom lañ dénkoon wàllum ASP yi léegi nag moom dañ koo toftal ci ministère bi ñu dénk kaaraange ak biir réew mi waaw kon moom Birame fay mu doomu Fatick bi mu ngi noonu. Ismaïla Madior Fall doomu Rufisque bi dellu si waat na si gouvernement bi gannaaw bi nga xam ne moom mu nga woon ca palais jege ñaari njiit réew mi ca cabinet yi par Macky Sall nekkoon. moom nag ginnaaw bi ñu joxee Malick Sall euh, wàllum yoon moom Ismaïla Madior Fall dellu si waat ci wàllum justice borom en principe moom moomee nga xam ne sax constitution bii ñu naan troisième war naa am warta am baat bi nga xam ne ñenn Sénégal yi am nañ dut bokk na si ñëkk siwal ne en principe Macky Sall mën naa am troisième mandat wala troisième candidature kon joxaat nañ ko wàllum yoon moom Ismaïla Madior Fall jëlee fa ka fa nekkoon di ministère maître Malick